mbokk yi baaxoo di ànd ak Tawfekh Production yegg si nañ fii ci euh, ya di gunge euh, Serigne Ato Diagne ci kër gu mujj gi waaye Serigne Mourtada ku gis yoon yi yoon wi ni mu demee euh, sa yaram dafay daw sax ndax yaakaar naa bu ñuy wax dëgg dëgg dëgg tashiwul janaza bu mel nii jafe naa gis lool lu raar la lu néew a néew a néew la nga gis ne nit ñi àndatuñ sax ak seen sago kenn ku ne rek yaa ngi xool foo mën a bay sa bopp. ngir fas yéene yegsi ci kër gu mujj gi di bàq ya ngir mën koo jébbal boromam moom nag yaa xam naa ne euh, doon na liggéeyal sëriñ Touba waaye sëriñ bi it fay na ndax jullit ñi lu leen mën a dajale kenn ku ne bàyyi sa yitte euh, fu ne nu ne nu mën a def ba yegsi ci barab bi rek nit ñi ñoo ko doon def waaw dangay gis sax yoon yi booy xool image di ko topp da ngay mujj sax sa yaram dafay daw sëñ Talla xam naa sëñ Ato euh, jàmbaari sëñ Touba dëgg wàcc na. ñuy ñaan euh, barsaq euh, nekk euh, nekk nekk nekk nekk daluwaayam bu seddu guyu si nekk ab saxawaayam bu mujj mboolem lu mus a liggéey sëñ Tuubaa rek sëñ sëñ Murtada damay fàttaliku ay ay ay ay ay ay ay mbir yu bëree bëri ci moom dinaa joxe misaal bi may jox sëñ Saliou sama kaamil bi xam naa ne lu xoroma la sax ndax loolu kenn ko war a nettali waaye waaye faaw ma wax ko bëggam sëñ Tuubaa bi ñu noppee sama waajur daf ko wax ne ko man de sama sama yaay mu ngi ci kër ga te moom euh, Serigne Touba ñaanal na ko bataay mu ne ko ah mu ne ko mu ne ko ku yàgg ku ku mës a gis Serigne Touba de faaw ma dem euh, siyaare ko keroog ñun ak moom ñoo ànd ak Moustapha Yassine Gueye bi ñu ba ci kër gi li gën bi ko sama euh, maam ne ko toogal ci kaw dana ko man ku mës a gis Serigne Touba sablal du ma ci toog dama sukk ci suuf nga ñaanal ma pour wane ne moom bëgg gi mu bëggoon Serigne Touba dafay yegg ci lépp lu mu gis loo xam ne lu tax Serigne bi la rek dana ca wane cofeelam bu dee ci ndaw ñi ñim ci defar kenn xamul nu mu toll ah, jàngal leen alquran yor leen yar leen def ci ñoom it ah, yaru murit loolu ah, mboolem ñi nga xam ne fréquenté nañ Hizbut Tarqiyyah mën nañ ci seere aduna bi yëpp it xam nañ ne bi wane ak murit jafee dëgg dëgg dëgg dëgg ci la ko doon def Dakar Université Cheikh Anta Diop ku ne xam na ne bu njëkk ah ña fa newoon nekk ay taalibe daanañu jàng tubaab waaye nag dund nag ak taalibe comme nii mu ko dundee nag moom mooy ki nga xam ne moo wane ne nii lu mën a nekk la euh, wane ko fésal ko boo xoolee nganu sëñ Abdou Lahad gi nga xam ne moom la ñëwoon Dakar gis nga ko ni mu def rango ay jaay sol ay baylaat wane ne moom sëñ Touba da koo njoolu ci biir tubaab yi génnee ko liggéeyloo ko kon sëñ Atou Dal ñoo ngi koy ñaanal kon sëñ Talla xam naa ne dañuy jàll ci biir image rek xam naa ne mbokk taalibe yi incha allah dana am kilifa yoo xam ne ñu ngi fi teew ñu jéem a xool ñan lañ ciy jël ñu mën a def seen i ci Serigne Atou

البنات إلى خلائق